jàmm li ñaan fii ci ya salam. yonen màggal daaru gi nak moy magalup manam bis bi nga xamé ni ku tedd gi dafa demone ci tukem ba ba ñëwaat manam seen dajé gu ñëk nga xamni dañ daan def di magal magal ci bi nga xamni mom la borom daru ñibi won aljana légui nak ñu koy magal soppi ko ginnaaw ci maanaam ndigalu sëñ Fallou lañ ko soppee mu doon bis bi nga xam ni moom lañu njëkk a gisee. nga xam ni Cheikh Issa Dieng daanaka moo wooyu woon borom daaru ngir mu dajeek borom Touba loolu xisa gi siiw na seede gi ëpp solo nag gi nga xam ne ñu ngi ko bëgg biral moom mooy maanaam li nga xam ni dañ koo war a leeral ci ki nga xam ni moom mooy borom daaru ci jëmmi boppam ndax bu ne màggal daaru ni daaru muxti bu ne daaru muxti ni maam Thierno Ibra Faty bu ne maam Thierno Ibra Faty ñi Serigne Touba bu ne maam Thierno ak Serigne Touba nag maanaam mën nga fa déggee taalibe mën nga fa déggee bras droit mën nga fa déggee ka nga xam ni moom la borom tubaa wóolu woon. nga xam ni maanaam seede yi Serigne tubaa seede ci moom rek benn boo xam ne doyoon na ci sëkk moom mooy maanaam ndawam ba magam mus sa juyoog moom te Serigne Touba mës sa juyoog suñu borom kon ku mës a juyoog Serigne Touba mësoo mësoo sa borom kon kookoy kon ñu baaxee leen rek tuuti ci ay bayit yoo xam ni moom la ñu def ci maam Thierno jukkee woon ko ci way woo xam ni dañ ko tuddoon Thierno mbégum boroomam waaye bu ñu demee ba ca wiir way ba ñoo nga naan Thierno bu Bamba daa jóg bay dem mooy yanu ay bagaasam bu doon ñàkk jot itam dana koy dénk kàddoom Bamba la dénkoon noppam dégluwul lu dul kàddoom dafa mujj di ndeyjooram moo naa indi Thierno moo naan am ña ko ndaama fàtte ndam ndaama lu làqi ndam jëmmam la fab aki i dërëm boole kook jotam mu jur ngërëm koo koy maam Cerno Bamba ko sanc loo dëkkam daaru muxti moo di këram sunna la fa daa doxal keemam jël la daa toftal ce yéenam foofu lañ fa bëgg wax moom mooy maanaam jëf la daa toftal ca yéenam ndax eh, maam ku nekk xam na ni maanaam lin naan yéene kese doyul da nga cay boole jëf maam Thierno yemul woon ci yéene yemul woon ci diine yemul woon ci sell daf ko boole doon lieutenant maanaam doon soldaaru seriñ Touba ba lu Serigne Touba bëgg mu mu mu necca ba fexe ba mu am nde Serigne Touba lu mu bëgg day am waaye Thierno da daan wax itam Serigne Touba lu mu bëgg day am te lu mu ma sant danaa ko def. kon kookoo di Thierno borom daaru ma nga xam ne moom la ñu waxaat fii ni ko Bamba moo Bamba Bamba moo ni na mbootam maam Serigne Touba moo seede lool maam ni fab na mbootam denc ko ca kadib rakam tege ko nee di sàkku ngërëm mësee su ko dakkal giiru dundam maanaam ginnaaw bi ka ba Serigne Touba wóoloo ba pare maanaam ni maanaam moom moo di léppam moom dafa jël loolu tege ko nee maanaam eggali di doon ndongo la mu doon kon nag borom daaru ñoo la gëm sunu xol yu tuuti yi ngay gësam yaa ko sañ nde yaa ko moom jëmm ji itam yaay borom jërëjëfati maam Thierno Ibra Faty ndaamal daaru barke Sëriñ Bamba waaw lu ñu yàlla di moom Baye Fall dañ koy nangu rek parce que tawat boo xamante ne waaw suñu borom la mun ñu si dara dañuy jëfee ndigal waaw te borom daaru boo ko woowee sax moom dara naan waaw màggal leen ko foofu waaw du suñ coobare nag jëmm jee fi ne waroon am ko fii sax fii Ndakaaru waaw waaye bu doon sax waaw mooy loolu Baye Fall kon bay kenn kenn duñu fi gis waaw ak ndigal li sëñ Muntaxa joxe tey 17h30 مالا بول شفاي وكان اقن يا ربي بالمصطفى باي وال نكو كلهم ديف لولاي تاوات لولاي شفاي كورونا فيروس باركي بروم دارو نوريني اي يوروب دي ري مانا نيو اد كو جوفي امول تاخال نان كو جوفي day taxam ci fi dunya wal akhirah murit ligal dees koy jofe nu mu mën ñëwe dees koy jofe amul te xel nañ koy jofe day taxa mucc fi dunya wal axira auzu billah bismillah inna waliyallah jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ñu ngi nuyu mbokk taalibe yëpp di ñaanal xalifa général yàlla bàyyi ko fi mu gudd fan lool di nuyu sunu wasila fi ak ñu jëm sunu buntu ci cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di cheikh ahmadou karam mbake noreni di gërëm rakam ju baax ji jambaram ji mu denk ci koori di mam cerno fati di nuyu mbokk julit yépp di len wax ni tay don na bëss bo xamanteni ci ñun ndam la ndax magal daaru tay bay faal yek yaay faal ñepp diko magalé ko biir kër mu doon lo xamanteni c'est la première fois lii moom l'histoire retiendra lay doon di wax ni mbokk taalibe nag li ko waral nag du dara lu dul tawat bi ñëpp bàyyi ci xel di coronavirus bi di covid 19 di wax ni mbokk taalibe yi nañu gën a sensibiliser ci maanaam tawat bii ndax xam ni tawat bi du ay caaxaan nañu gën a boolewaat suñu doole xeex ak tawat bi te xam ni tawat bi du ay affaire de caaxaan li directeur yi ak gouvernement bi wax nañu appliqué loolu ku ci nekk toog sa biir kër la nga xamante ne moom lañu dégle bu la ci kenn jiitu ndax ñun ay Baay Faal lañ te dañoo ne ñun Baay Faal lépp lu nga xamante ne day jëmale réew kanam ñu ñoo si war a jiitu tey nag di màggalu daaru ku dégg màggalu daaru sa xel lay dem ci maam Thierno Ibra Faati mu doon bës boo xamante ni Serigne Touba bi mu jógee ci exilam bi ca Gabon bi mu ñëwaatee daje bi ñuy njëkk daje moom ak maam Thierno Ibra Faati mbégte googu la Serigne Touba wax nañ koy màggal mooy tey màggalu daaru almuxti kon tey ji duñ def lu dul may gaay yi loo xamante ne ni délicace di ko may mbokk taalibe yëpp di ko may waaw yaay faal yëpp di wax ni Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni yàlla na fi yàgg lool te wër maam Thierno Ibra Faat yàlla na fi yàgg lool te wër jërë ngeen jëf Cheikh Modou Bamba Xaadimu Rasuul moom moom fii moom moom fu zul jalali wal ikram محمد محمد خير الأنبياء محمد رسول الله ذو الجلال والإكرام محمد خير الأنبياء yàlla yaa nu sàkk yaa moom faqir dafay nangoo dagaan yërëm noo muhammadoo xayrul anbiyaay allahu min kulli karimin akramo منامه خادله تكرمه أسلم له كل كلماني ولازم لسان لرحماني وجه بشكر بلا كفراني تخفى إصابه مهانراني محمد رسول الله ذو الجلال والإكرام محمد رسول الله yaanu sàkk yaanu moom ku nu bind yaa tax muhammadu muhammadu muhammadu rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la zul jalale yàlla moom la ilaha illallah ndamal daaru laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah zul jalaale bamba daaru limba won fa sikore mamare magwagore zul jalaale illallah borom daaru gërëm nga Allah la ilaha illallah illallah borom daaru gërëm faati jamin it ji koy Am jarno fatima wute wuteeg Musaa Ka jërëjëf Touba wa Dakar instant bi len ñaanal jam di len wax ni yalla na leen borom bi defal tawfiixa yàllaaw ci kaw ci kanam ci lu baax Dakar instant auzu billah bisa jiital jiitu nga bur yàlla nee na jiitu nga yoneen bi alxuraan nee na jiitu am ngay maxaama yor ngay kiraama ne leen jaraama maam Cerno Faat ba Bamba soxla yow lan fi wooloo yàlla la woolu maam Cerno Faati yaa yor doxin ba yaay rakki Bamba yaay magi Masamba maam Cerno Faati ajaajaate ilal janaati barke bayti maam Cerno Faati munta ama walam yakun mukasama bafaaxu kullamat sama lil muntami li jarama borom daru jaral ak ci alaykum wa rahmatullah ñuy sant yalla di julli ci yonent bi di santat cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tay jaajeufalat tay yeesal sunu momel ci cheikh ahmadou karam bakki nourine di ñaanal cheikh mohamed muntaxa mu yag fi lolu te and ak wër waye di ñaanal serigne abbas mi fi togal borom darul moxti mi waral bis bi mu yag fi lol te and ak wer ak mbolim kilifa yeb ñi ngi yalla bu baax bim nu maye nu wat bis bi di bis bu magalu darul daarul moxti di bis bi nga xamantene ci re serigne touba gise won ak rakam ju tedd ga ya, di maam charon Ibra Faati borom daru muy bis bi di bisu ni shaban. yamok ay dat yu bari ci walu diine ku ne xam na ne bis bi la ndigalul yàlla wàccoon ci ne bis ni ki tey nan wëlbatiku di jublu kaaba ga changé xibla bi ci baytul maqdis bi nga xamante ne fa la jullit ñi daan jublu di julli mu doon bis boo xamante ne wax fa dëgg yàlla bis bu màgg la di bisu koo xamante ne ku màgg la muy borom darul moxti cernu nga xam ne cernu moom waxtaanee ko dafa doon lu jafe ndax wax ci moom loo wax ci moom am loo bàyyi waaye li nu mën a wax rek mooy borom daaru mooy ki nga xamante ne moom la Serigne Touba dénkoon njaboot gi ci bi muy tukki waaye laata boobu am lu ko jiitu ndax mën na wax ne cerno mooy listaxaaru yoonu murit ndax ku ne xam ne la ko Momar Anta Sali Cheikh Ahmadou Bamba ci cerno laata moo gën a ak bi mu gënee àdduna li jot xew lépp te mu doon loo xam ne murit yi yàgg noo di nga xam Serigne Touba nee na moo ci ji ne ngor ak jom maa ko def ci Cerno waaye ngor ak jom dama koo fekk ci moom Sëriñ Tuubaa ko jàngal comme na ko suñ Musaa waxee moo ko def kàng fóori borom daaru jàngal nay fóori te musta doori Sëriñ Tuubaa ko jàngal xamal ko lim ko xamal lépp li ne ci Cerno yëpp Sëriñ Tuubaa def ko ci moom Sëriñ Tuubaa tukki ba ko fekk njabootam gi waaye ku ne xam na ne li fi borom daaru daj nga xam ne àndoon ak njabootu tedd ki wax nañu ne sax fanaan na sax siw sàq ngir ren ngir li fi Sëriñ Tuubaa bàyyil bu mu dikk mu am dara loo xamantene da ci manqué wala mu am dara loo xamantene daf ci xajam wax nañ ne borom daaru fu musan dekk bu defé ab dir ay fan tubaab bi tal ko mu tuqu fenen mu and ak ku tedd ki lu ne mu koy daj wax nañ ne bis bi nga xamantene ne ku tedd ki ah, ñim fi ba ñu tawat gis nañ wax ju reey gi nga xamantene ak waxu ngor gi borom daaru wax ndax wax na ne ñaan boromam ne ko bu Serigne Touba ñare jóge ci tukki bi ma koy kenn yal naa perte yal sama bakkan bi mba bu bosu sama ndey ji soxna Faati sama doom ji di mu daw bal la nga xam ne aw ma lu dul waxi ngor la ku ne na mu yore won ginnaaw sëriñ bi bi bi teewee it lu fi bi bàyyee woon rek borom daru fawxa na ko wax nañu ne barada bi nga xamante bi sëriñ bi dem ba woon na fi ba mu cerno jox ko dañuy wax nak nan bu doon Moussa mom Serigne Touba Haruna waye dama ne sax wuute amna na ndax ba Moussa demee ba fi Haruna xeyna ba mu dikaté fekkon na ñen ci ci askan wi wéddi ba nekkon ci lañ nekkon waye borom daaru bi ko fi Serigne Touba bàyyee ba dem geej ba dik bi mu ñëwé yakarna lu mu fi lu fi bawon rek ba mu ñëwé fekk na Cerno Cerno ful ko Serigne Touba wax ko waxam juree ji it ne ko ndax bo man ma dess ndax dinaa mën nii lii nga def ndax dinaa ko mën waaye li may wax rek mooy borom daarul moxti mooy koo xam ne li ko Serigne Touba waxoon ne ko boo fay ko ñëpp xep seen i cër fii ci àdduna moo tax cerno yomal xiyaam rek la ay mbiram xaj ndax Serigne Touba moo ne am mbootam ci cerno la ko denc ah, kon bir nañu ne cerno lañ wax ne moo njëkk a sukk mujj jug ci baatin kun fa yakun moo ko jagoo moo leen gën borom daarul moxti kenn du moom ñuy soñaan nak suñu bop tay soñaat ci yoon wi ak mbollem fu kat nek ndax li ñuy wax rek euh, rubrique bi gaay di def ci internet naan xamle le jotna te mu melni yeen saay nga gis ñu ne ci bass waxtaan bu juk te kenn du tuddu borom daru dama wax ne lolu ëpp na ndax cerno mi nga xamne ne dembu moy tay tey di listixaaru yoon wi cerno mom mat nay baye xel bu wër wër wër wër wër wër wër ndax borom daru kenn du mom. bis bis bi nu doy nak li ñuy wax ne bus bis du tuuti borom lay tollol borom daaru fim tollu Serigne Touba rek lako Serigne Touba lako Serigne Touba tollu doon loxom joram doonoon rakam ju ses ci moom rek nga xamne ne jikko yi nga xamantene Serigne Touba def nako ci mom yaakaar le ne ngorga ga yoy ga nga xamne ne Touba dana da koo fekk ci mom lool rek yéeme na xam-xam ba rewon lool borom daaru geejju lool ci xam-xam la wax ne le serigne musa wax ne sara haqi sari hatom ja waralon musaf murid ya waaye xaqi xatoom jaa waraloon mu marid ya jëmmi nit jikkoy malaika cerno fati Ka ku na xamne na ne bu ñu ñëwee ci walu diine rek fa nga xamantene fa la ci borom amul way ndax wax nañ ne jamono yooya daarul muxti tollon na fo xamantene manam ndox mu nit barkelo sax day jafe waye borom daru mom bo musaan dugg ci Mam maam jàpp lu tooy ngay dugalé kon cerno la wax rek Mam ci diiné boo ko lambee fekk ko mu feese dell boo ko boo ko dàkkee ci charia charia loo indi fekk fa borom daru waaye xaqiqatam ji tamit yéemoon ñëpp ndax wax nañ ne cerno ci dundam musta génne azaka li ko waraloon mooy nanguta moom dara daana wax naan kër sëñ tubaa gii ma dëkkee tool yi sëñ tubaa yi may liggéeyee ndongoy sëñ tubaa yi ma dëkkoo kon borom daaru musta am dara mu wax ne nag lu amul lu moomul du ca joxe dara kon borom daaru musta am dara léppam sëriñ tubaa la ko delloo ñu ngi ñaan ci ci barke bu tedd ki mu may nu ñu fekkee ko ay déwén te moom mu dolli ñu fayal Thierno Ibra Fati borom daarul moxti yàlla nu ko Serigne Touba dolli fayal ndéem fay na ko di ñaanal sunu jàmbaar ji Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax li olof di wax rek mu jóo puso mu réer ah, yellul Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni lu waaye doon wër ci borom daarul moxti wër ko ca way juróom wa Seydina Ousmane boo dikkee ci moom fekk mu boole yëpp dëxañ ko ak la mu la mu la mu am ndax wax ne na ñeenti yoon la ndayan mun a Cerno Ndayaan Serigne Ousmane ak walen romb walen romb rek moy mi nga xamantene mo jubal direct jëm ci Serigne Touba momit kenn du mom ñuy wax aduna di wax senegal nanu baye xel ci Cheikh Ahmadou Kara ndax la wax te ñewagul di ci tege mi ngi bëgg bari nanu ko wat xel ndax mom mo wax ci làmmiñam samay wax day nuru lepp waaye luma wax bindal yakarna ba mi wax ci rew mi nan pétrole amna fi boba gëm ko du yomb boba gëm ko du yomb waaye bi jamono doxee tuuti xam nañ ne waxi Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Ndioré ñu jooju lu wér la lu wér la na mu ko waxee woon ca sikoor yi nga xam ne ñun duñu bëgg sax di jaarat ci kàddu gi ndax moom na mu ko waxee waaye ku ne xam na ne la doon wax moo feeñ ki lay wax nag loo gisagul boo ko gisee buy wax na ko déglu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Ndioré yii di fi nuru ay ay jafe solution bi moom yor na ko may ñaan askan wi di ñaan ñi nga xamante ne ñoo ne ci nguur gi nanu dégluwaat Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Ndioré ndax njariñ képp képp képp képp la ëmbal réew mi nanu ko bàyyi xel te ay digleem ñu si topp ndax digleem njariñ la li ñuy wax ne nag Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni maam dafa jiitu jamonoom loolu nag ñun dund nañ ko ndax benn exemple rek la ñuy joxe muy ci Bamba fépp Bamba partout ba ko Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di wax mooy ku nekk di dund Sëñ Tuubaa fa mu ne yaakaar naa jamono firndeel na ko tey ñu am xew-xew yi am yëpp ci yoonu murit ñu ne ku nekk na toog fa mu toog dundee ko kon bamba fépp bamba parti donte amoon na firnde ci démb tey gën na koo firndeel ndax Cheikh Ahmadou Kara waxam du tuxu du du du dellu lu mu wax sunu borom da koy def ndax ndaayaan moo ne ko daanu ñaan yàlla loo bëgg mu def ko ne ko matu la ñaan loo yàlla dina ko def ku nekk koo xam ne nag cib dëkk lu mu ñaan yàlla def ko kooku daa mat a bàyyi xel nanu bàyyiwaat xel jëmmi Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooree ni ji bu baax a a baax a baax ñun ñi nga xam ne ñoo aju ci moom yaakaar naa ne nampatal nañu ci lépp tey màggalug borom daaru gii nañ ko doon dundee ca daarul moxoti noonu lañ ko dundee fii ndax ñun lu jiitu tey sëriñ bi màggaloo nañu màggal Touba Thiès loolu aju ci Bamba fépp mu màggarloo ñu màggal daaru ndakaaru kon ñun fu ñu ci mën a rek tàmmal nañu dundu sëriñ Touba ak fu nu mën a ne kon jërëjëf a teeti Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni. instant rek yaa ma xam. man xaw ma ci kaw lañ jugee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

information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. looy wax ci Dakar instant. Dakar instant na fi instant. Dakar boo yeewoo. moom laay seetaan. boo tëddee. moom laay seetaan. booy sinap. moom laay sinap Twitter. Dakar instant. Dakar instant à tout instant.